Euh, édition kon weer wu ne euh, de gaaw ba ca njëkk ñu war a amal xew-xew bu ni men fële ca diwaan bu ndar géej fële élimaanu jawrin yi di Ousmane Sonko demee ngir euh, jëmmal bëccëg googu comme niñ ko amalee ci yeneen gox yi nekk ci réew mi yëkkati na fa ay kàddu wax na ci li nga xamante ni moom moo di station de pompage ba nekk ca diwaanu pikin Euh, foofee ca euh, gox bu ndar géej ak koppar ya nga xamante ni waxoon nañ ni war nañ ko fa dugal mu mel ni daal yëfi ñoom dalul seen xel ndax lañ ca nattoon ci ay koppar ñoom nguur gu bees gi jàpp nañ ni daal euh, jëmu ca te bëgg nañ ci def audit bu am solo kon dinañ déglu suñu biir édition élimaanu jëwriñ yi di Ousmane Sonko nekkoon foofee ca diwaan bu ndar géej leneen lu war a ñëw suñu biiru xibaar mu di wàllum euh, avortement euh, fële ca diwaan bu Bambey foofe nag nee nañ ci benn weer képp ci lu tolloog juróom benn fukki cas nemmeeku nañ ko fa maanaam avortement daal maanaam biir yàqum biir loole nag mu doon lu doy waar euh, Ndeye Fatou Wade nekkoon ca gox boobule lamu mu fa taataan danañ ko am suñu biir xibaar kon wàllum avortement ca diwaan bu Bambey Euh, juróom benn fukki cas ak benn rek ci benn puweer képp mu doon lim bu jéggi dayoo ñu war cee dellu si sunu biir xibaar ñu wax ci ndaje ma nga xamante ni mooy am ca diwaanu Abuja foofe nag am na geneen ndaje guy am moom it te diwaanu Niamey mu di ñaari ndaje lépp féete ci Afrique sowu jant président Bassirou Diomaye Diakhar fay kon dem na teewe ndajem chef d'état yay am ca Abuja ëllëg ci dibeer bi la lañ fa war a waxtaane bokk na ci li Afrique sow jant suñu gox bi waaye ña nga xamante ni nag ñoom ñoo féete ca Niger ca Burkina ak ca Mali ñoom sampoon seenu kuréel ñoom it amal nañu ab ndaje jiitu waa CEDEAO ndax ñoom waa AES di Alliance des États du Sahel tey lañu am seen ndaje mi ci gaaw bi fole ca diwaan bu Niamey kon yooyee yépp la ca ruusandi rek daañu ko am suñu biir xibaar mbokk yi ñetti ponk yooyu mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi. mbokk yi gërëm nañ leen sant nañ leen ci taamu gi ngeen taamu seen télévision 7TV bëccëgub set setal bii di ñaareelu édition wala setal sunu réew amal nañ ko ci gox yu fasantikoo fii ci biir réew mi waaye e, fa nga xamante ni fa lañ ko jëmmalee nag mooy diwaanu ndargéej ba njëkk ña ngi ko amee woon fii ci caaroy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 amul station d'épuration foofee ca Ndar Géej ñu dellu siwaat fii ci Ndakaaru ba tey ci bëccëgu euh, set setal bi ñu bëri doon nañ ko amal euh, agence sénégalaise de la promotion touristique moom it màggal na bëccëg gi fële ca diwaan bu Ngor fa lañ amale woon seen opération set setal euh, diwaanu Ngor jëm Almadi mu doon li nga xamante ni Pape Banda Gaye teewe woon na ko ab bisub set setal la boo xam ni ka ko amal moo di agence sénégalaise de promotion touristique ci corniche bu Almadies ASPT di tontu ci wooteem njiitu réew mi ngir gën a taaral xarkanamu gox yeeg goxaat yi fii ci Sénégal. dañoo war a wër Sénégal maanaam juróom-benn pôle yëpp pôle bu ci nekk dinañ choisir weer boo xam ne dañ fay dem pour ñaax xale yi ñaax ñëpp ñu jàpp ci set setalu dëkk bi ñu xalaat ne comme que dañ naax naan ci tubaab charité bien ordonnée ñu commencé ko fii nga xam ne amul fu ko ci gën a développé loolu rek dafa doon loo xam ne waroon na mën a tax ñu tànn fii. mu dib activité boo xam ni mairie bu Ngor daal na ci dugal loxo ba naka noonu yeneen kilifa yu fasantikoo li waral bés bi nag tey mooy li nga xam ne lu ñu yàgg di def la mooy di setal ak di maintenir di fexe ba sunu gox yi di gën a taaru ah loolu nag dafa nekk luy dëppoog li nga xam ne njiitu réew mi moom la woote. mooy ne woo Sénégal yëpp ñu fexe weer bu jot na serait-ce que benn yoon la ñu daje setal seen gox. vraiment su ma ñëw fii man tey c'est je suis venu en tant que citoyen ñëw pour mandargaal solo ndaje bi nga am ne moom la ñu am tey. Euh, set setal dafay dafa nekk loo xamante ne nii lu lu lu normal la ci askan bi dafa war a xam ne lu am solo la loo xam ne nii bu fekkee dañ koy def weer wu ne dina tax nit ñi xam ne set setal dafa am solo. journée yi ni mel agence sénégalaise de promotion touristique fas na yéene daal di koy gën a baril ñu ciy woo askanu Sénégal. jërëjëf Pape Banda Gaye Mbaye ginnaaw almadi dañuy dem wutali fa nga xamante ni moom moo di Cambérène foofe nag set setal bi boole nañ ko journée de reboisement reboisement maanaam jëmbati garab mu nekk tamit deuxième phase bu euh, édition setal sunu réew ni ma leen ko waxee mu mel ni askan wooy yeewoo ci diwaanu Cambérène ñëw nañu dugal ci seeni loxo. Cambérène daal dina feddaliwaat taxawaayam ci seetal suñu réew ci deuxième opération mensuelle bi maire bi nag daati jiite yëf yi. boobu nag mooy na ñëpp jàpp ci ki nekk ci suuf ba ki nekk ci kaw et loolu la ñu approprié wu ànd ak nag toutes les forces vives de Cambérène. ñi nekk ci parti yi ñi ci nekkul les le le le monde citoyen lam le citoyen lambda le Cambérenois lambda pour que ensemble ñu traduire vision boobu setal suñu réew en réalité concrète au niveau de Cambérène. gannaaw nettoiement bi li nga xamante ne moo ci topp mooy jëmbat garab ngir taaral dëkk bi. reboisement mi ngi ci. Euh, réparer les grilles avaloirs mi ngi ci loolu yëpp aussi pour faciliter pour yombal ndox yi mën a jàll sans problème te loolu dama jàpp ni président su ko lancé appel bi rek dafa bëgg ku ne ku nekk def ko sa yëfi bopp loolu moo tax ñu comprendre loolu bëgg ko traduire ñëw def ko mu nekk la nga xam ne dafay réel dafay exister à Cambérène ñëpp def ko seen yëfi bopp li des mooy suivi bi mu nekk defi bi nga xamante ne war nañ ko relever ngir rek ñu daal di pérenniser yile action citoyenne et civique naka la ñuy fexee ba lay génn ci suuf si di pétrole ak gaz Sénégal mën cee jariñu loole moo waral ñu amal ab euh, ndaje di conférence fële ca euh, daara ju kawe ji di université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru pour waxtaane wàllum hydrocarbure kon nag mu nekk ndaje mi nga xamante ni dañ doon leeral ak nag la ñuy fexe ba téeméer boo jël fukki yi la Sénégal di féetewoo ña ca des féetewoo la ca des mu doon li nga xamante ni ba tey mënul euh, dugg ci nopp ñi nga xamante ni ñoom ñoo yeewoo ci biir réew mi ci biir waxtaan wa nag lu bëri jot na cee leer. Sénégal yaakaar bu mag la am ci exploitation pétrole ak gaz bi nga xam ne génnee nañu premier baril pétrole bi ci fukki fan ak benn ci weeru juin gi ñu génn waaye nag bëri na itam ñi nga xam ne am nañ ci xel ñaar ci li jëm ci wàllug bénéfice yi. ndax nag jàpp nañu ne téeméer boo ci jël rek Sénégal fukk rek la ci am waaye nag ñi nga xamante ne seen xel màcc na jëm ci wàllu wa jàpp ne dina romb 10 pour cent. ci firnde bu ñu doon produire juróom fukk jàpp téeméer junni baril état bu Sénégal téeméer boo jël ñaar fukk képp la ci moom waa JV ñoom ñooy moom juróom-ñett fukk yi. kon 20 pour cent lay doon au lieu 10 pour cent sax. droit douane yi nga xam ne war nañ ko fay impôt yi waaye itam li ñu dippee l'IBNC nga xam ne pays sous-traitants internationaux yi ñoo ko war a fay waaye itam wàllu mi nga xam ne Petrosen am na ci. 80 pour cent yooyu à la fin de la journée ñaata lay dikkaat day dikkaat day wàññeeku ba 40 pour cent pour lu ñuy woowee Woodside en tant que tel. donc si 25 pour cent yooyu li nekkoon 80 20 pour cent mun na dem ba nekk 60 40 pour cent te bi état du Sénégal moo koy am. révision contrat pétrolier yi nag bokkoon na ci promesse électorale bu président Diomaye fay waaye nag laaj bi ñuy samp mu di ndax njiitu réew mi am na ay marge de manœuvre ngir xoolaat contrat yi nga xam ne ci ancien code pétrolier bu 1998 la ñu sukkandiku ngir signé leen bi ñu sukkandikoo nag ci professeur mi nga xam ne xelam màcc na jëm ci wàllub yoon. loole lu mën a nekk la. renégociation mën na possible waaye il faut un écrit ça maanaam dañ koy bind première condition ak deuxième condition maanaam il faut ñaar parties d' accord. depuis fukki fan ak benn ci weeru juin gi ñu weesu Sénégal bokk na ci kuréel bi boot pays producteur pétrole yi gannaaw bu Champ Sangomar bi génnee baril pétrole bu njëkk. ñu wax ci wàllum wér-gi-yaram euh, fële ca diwaanu Bambey liñ fa nemmeeku jot na tiital ñiy yëngu ci wàllum kër docteur mu di ci benn ku weer rek lu tolloog juróom benn fukki cas lañ fa nemmeeku ci yàkkum ëmb mu doon li nga xamante ni nag ëlëm na leen lool ca ndaje mañ fa doon amal te taskatu taskatu xibaar yi yëngu ci wàllum e, kër docteur doon ko fa amal waxtaan wi yëkkati nañ ko ngir wut ci ay tontu waaye mel na ni ba léegi la ko sabab xamaguñ ko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 Ndeye Fatou Wade yow la ñuy descendir ndax yaa demoon ca diwaanu Bambey fa nga xamante ni nee nañ la fay ëmb tey yàqu te doonut seen sabab mu ngi leen di tàmbalee jaaxal waaye it la nga xamante ni yittewoo nañ ko moo di euh, bloc bi nga xamante ni bañ ko dalee laaj yàgg na lool bloc opératoire moom la district wala centre de santé bu Bambey. doon laaj maire ba sax diggoon na leen ko waaye dem na ba ci biir daal mu ni euh, fanweeri million yamu ca waroon def da ko daal di yóbbu feneen ndax euh, jëwriñ bi ñu dénk wàllum wér-gu-yaram moo ko diggoon ni dina ko tabaxal bloc opératoire euh, Bambey CREI pour mu mën a am un bloc opératoire disponible et vraiment utilisable ici au niveau de de son centre de santé identifié nañ site bi def nañu lépp mais jusqu'à présent loolu mooy suñu problème mais ça fait déjà deux ans mu ngi nekk en retard et que vous êtes comme vous êtes des porteurs de voix vraiment ñu bëgg ngeen taxaw ci euh, de sorte que vraiment cette euh, euh, institution boobu ñu mën ko am dans les plus brefs délais parce que décès yi may wax ni le médecin chef adjoint et là on les a audités c'est des décès qui sont évitables. bloc bi li ko retardel mooy dama dem ba di ko engagé pour defar bi waa ministère intervenir ne dañoo war a tabax bloc opératoire Bambey. de 350 millions alors docteur kan bi nekk fii médecin chef bi ne donc monsieur le maire nañ ko suspendre ba ministère def bloc boobu mu wax comme ça ñu fab fonds yi destiné au bloc ñu viré ko feneen surtout urgence comme ça mu nekk beneen investissement moo tax ñu stand mais sinon heure bi bloc bi pare woon loolu moo tee bloc bi pare ba léegi donc c'est entre le ministère de la santé ak waa centre bi loolu moo ko téye mu nekk bloc opératoire bu district de santé bu Bambey doon une nécessité euh, di am yaakaar ni daañ leen ko tabaxal du yàgg dara ñuy wax ci leneen mu jëm nag ci wàllu mbay mi mbay mi mel na ni intrant yi maanaam jiw yi euh, distribué nañ ko ñi nga xamante ni ñoo di baykat yi ma ngay wëy di euh, wër réew mi fa nga xamante ni nag moo di diwaan bu Koul nekk ci département bu Tivaouane ñoom jot nañ seen wàll mu doon li nga xamante ni rafetlu nañ ko lool lu tax moo di ni ren vingt pour cent yi maanaam téeméer boo jël ñaar fukki jagleel nañ ko jigéen ñi nga xamante ni ñooy yëngu ci wàllum suuf si. tey danoo ñëw rek pour commencer jàpp naa ni jo joxam jiw mi ak engrais bi. tey nag maire bi wax day maire bu am mbégte ndax la vingt cinq passé bi mu waxee ñu bari xamul woon fi mu doon waxee boobu da doon alerte xam nga bu dee li nga daan am dawul demee noonu soo teelul te wax rek ba utul na mu daan demee lay bii di yoon nag alhamdulilah jiw yi ñëpp maase nan ni mus fa am comme nag mus fee am ñoo ngi si sant bu baax nguur gi ndax na wax dëgg yàlla jàpp nañ ne liñ daan am am nañ lu ko ëpp bu dee engrais bi c'est la première fois man mi ma fa nekkee ba léegi engrais bi ñëw mois de juillet dañ tàgg dañ daan toog bi nit ñi ji bayaat bay wala bay war a bayaat encore engrais bi soog ñëw bi yoon nag gis ngeen engrais bi ci biir gerte gi tam li ci nguur gi wax jàpp naa leer na ab saaku dañ koy jox am njël borom njël chef de ménage. ki doon addu moo di Modou Fall di maire bu Koul doon addoo ci micro euh, Bint Diarra euh, Bint Traoré ak Baba Diarra ca diwaanu Thiès. ñu wax ci leneen mu di wàllum COSEC di euh, euh, conseil sénégalais de chargeurs ñoom nag wut na ñu ngi wuti pexe yu bees ngir bën a wutal liggéey ndaw ñi euh, bu ko jaaree nag ci ay stratégie yi ngi duppee cabotage régional ab stratégie bu yees la wara a méngoo ko ZLECAf maanaam goxu Afrique bi nga xamante ni seen jënd ak jaay ñoom ñoo ko bokkoo déggoo loole nag ñu bëgg ko jëmmal ci ab waxtaan la ñu yëkkati yooyee euh, pexe Rokhaya Thiam moo ngi àddu ci micro Jibi Diop Ndiaye. pays africain yi suñu marché yi dafa xat industrie yi li ñuy produire dafa marché bi dafay xat yaatal nañ ko. Euh, loo daan jaay ci benn réew boo amee possibilité jaay ko ci juróom fukki réew ak ñeent xam nga ni sa marché yaatu na Euh, boo duggee ci zone de libre échange day fekk nga am loo jaay li ci dàqoon nag mooy ñu ne réew mu nangam caméra di boo ko bëggee réew sàngam a koy def piis réew sàngam moo ci spécialisé nangam nga xam ni kenn ku ci ne am na looy def bu boobaa njariñal création d'emploi bi ñu ciy wax mu mën a nekk. beneen solo bi nga xam ne daf koy daf koy laaj boo bëggee doxal lu mel ne ZLECAf mooy ñu fexe ba nga xamante ni euh, boo boo lijjantee ba am loo jaay. nga am lu la ginnaaw euh, ñii di chargeurs yi ñu wax ci ñi nga xamante ni ñoo di ferrailleurs yi ñoom it lenn moo leen sonal moo di li ñuy duppee concurrence déloyale te jàpp nañ ni nguur gi waru leen seetaan benn yoon war na leen mën a protéger ñoom ñii doomu réew mi te yëngu ci wàllum ferraille. ndaxte ñi nga xamante ne ñooy industrie yi bépp engagement boo xamante ni jël nañ ko ci secteur bi ñu ngi koy respecté exportateurs yi tamit sénégalais yi nga xamante ne nii investir nañ ci ay dépôt agré ànd ñun ñi nga xam ne ay sénégalais lañ ñu ngi ciy liggéey ci tranquillement léegi nag ñu gis benn waay bu dëkk ca côté Kaolack dëkk bu ñuy wax lan mbéngeen ne moom exportateur la di wax ne industrie yi dañ ko bañ a jaay te fekk loolu amul ndax moom dafa yor lu jënde day bëgg a ñëw ci industrie bi bëgg jël sa matière te du la fay ba pare di la dawloo te loolu tamit industrie yi xëy na ñoom nanguwuñu loolu. dañ fi ñuy xaar état mooy euh, réew boo gis ci àdduna ay doomi réewam ñoom ñoo koy yóbbu ca kanam. dañ te ñun am nañu ay yeneen étranger yoo xamante ne ñi ngi ci biir dëkk bi di concurrencer ak ñun ci matière bi ñuy liggéey di def affaire export léegi moom li nga xamante ne moom la ñuy xaar état amoon na ay licence yu mu génne woon yi muy jox étranger yi loolu lañ bëgg mu arrêté ko jox ko ay doomi réewam képp ku ñëw ci dëkk bi bëgg liggéey ci loolu mu liggéey ak ay doomi réewam waaye lu toll ni licence kenn waru ko yëkkati di ko jox étranger ñu wax ci métier taskatu xibaar démb ci àjjuma ji njiitum réew mi président Bassirou Diomaye fay dalal na convention des jeunes reporters du Sénégal ñoom nag di ay ndaw nekk ay taskatu xibaar njiitum réew mi dalal leen ñu waxtaane fa li nga xamante ni moo ñeel moo ñeel métier bi rawatina carrière journaliste yi ña ci gën a ndaw ba ña ci gën a mag loolee nag mu doon euh, ndaje mi nga xamante ni njiitum réew mi moom it yëkkati na fa ay kàddu ngir leeral ponk yu bëri yi mu jàpp ni euh, lu mënuta woon a ñàkk la ñu dalal leen ak ci makaanu njiitu réew mi waa convention des jeunes reporters du Sénégal wax ci tuuru presse bi yëpp ci noonee la ñu prox ndollu ngir jëbbal njiitu réew mu Sénégal ab rapport buy ñëwaat ci jafe-jafe yi nga xam ne ni moom la reporter yi ak technicien de média yi di jànkonteel saa su ne. les résultats. résultats yi dañoo wane ne par exemple li ci tolloog rek ñaar téeméer ak fukk ak juróom-benn reporter ñoom ñëpp amuñu contrat de travail ba tax na kat ñoom amuñu benn versement fa nga xam ne moo di IPRES wala sax ci caisse de sécurité sociale kon am nañu ay yoo xam ne sax dañoo feebar ndax i jafe-jafe dëgg-dëgg. hospitalière ici Sénégal. mu di ay jafe-jafe yi nga xam ne ni njiitu réew mi amoon ci bàyyi xel bu baax. j'ai pu de ma campagne. waaw ci sama campagne dama constaté ne anam ya nga xam ne taskati xibaar ci ñuy liggéeyee. bu fekkee ne anam ya nga xam ne kat métti na lool waaye tamit waxuma la sax wàllum précarité wala statut bi loolee da ci gën a yokk day gën a métti ci seenum liggéey te loolee sax day tax ñu du mooy liggéey bii. de garder une passion. li ñeel nag mbirum lempo yi njiitu réew mi fas yéenew ci dellu gannaaw benn yoon. vous waaw nekkul lu njëkk ñuy wax wàllum effacement ci dette fiscale ci entreprise de presse yi loolu itam rek euh, nekkul loo xam ne ci man maa ko fi njëkkee déedéet loi la boo xam ne dañ ko fee teg ci employé mënti toll ñoom am na revenu yoo xam ne ñu ngi koy am kon tamit dañoo war a fay lempo. à ci bileeg jano ak taskatu xabaar yi njiitu réew mi di rafetlu liggéey bu mucc ayib bu convention des jeunes reporters du Sénégal di amal ngir liggéeyu tasum xibaar ak gën a dem ci kanam. jërëjëf Mamadou Kanté ñu daal di wax ci xibaaru bitim réew ni ma leen ko junjee ci boppu xibaar yi président Bassirou Diomaye Diakhar Faye jóge na tey ndakaaru wutali Abuja fa nga xamante ni euh, président wala njiitum réew yu féete ci Afrique sowu jant di goxub CEDEAO war nañ fa amal ab ndaje ëllëg lay doon nag ci dibeer bi waaye euh, la ko jiitu mu di tey ci gaaw bi ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa euh, Niger. waa Niger waa euh, Burkina Faso ak waa Mali ñoom ñi nga xamante ni dañoo ñoom it samp seenub kuréel nar a beru ñoom am nañu ab ndaje fële ca ñaame ca pays réew Niger fa ñu amee seenub ndaje mu nekk ndaje bi nga xamante ni day gën a jëmmal rek euh, gedd gi ñu gedd CEDEAO ñoom waa AES di alliance euh, bi nga xamante ni samp nañ ko mu mel ni kon waa euh, ña des ca CEDEAO ñoom ëllëg kon daañu daje fale ci Abuja ci njiital réewum euh, réew ma di Bola Tinubu bu ba tax euh, président Bassirou Diomaye Diakhar fay moom dana teew ci ndaje bi di njëkk bañ ko fale léegi ci weerub avril muy teewe ndajem euh, njiitum réewum CEDEAO yi kon ñu jàpp ni daal alliance des états du Sahel di euh, AES ñoom amal nañu seen ndaje ca ñaame ña ca des bokk ca CEDEAO ëllëg lañ koy amal ca diwaanu euh, diwaanu Abuja nekk ca réewum Nigéria mbokk yi mu mel ni lii lañ leen fi indiloon ci ay xibaar ma leen ko doon yegge ci kàllaamay Kocc Barma Suzanne Dem war fi teew moom it dégte leen kàllaam euh, xibaar yi ci kàllaamay nasaraan di leen gërëm di leen sant mbokk yi ci teewlu bi te di leen ñaanal njeexitalu ay bésub jàmm